en tant que laamuñu askan wi rek en tant que porteur de voix du ñu ne kon na sénégalais bu ñu respecté malgré que ni sax xama dofe na te attitude am il est incorrect et tout xama mais aussi mu ngi doon mën ay combat yu noble muy xeexal Sénégal xama alors dañ ko gis mu trahir askanu Sénégal xama gënu naan ay dem leen liggéey doo leen jot seen quatre cent mille xama ay demee bëgg taal réew mi kan moo bëgg taal réew mi diw problème yooyu waaye clochard boobu noonu saa waay ñu bàyyi bàyyi bàyyi bërëb boobu noonu sax saa waay xoola wax si moom sax xoola mooy loolu quoi c'est-à-dire ñun li ñu metti mooy askanu Sénégal bi nga xamante ni nii xam nga nit ñi nga xamante ni ñoo ko daan suivi nit ñooñu ñooñu waxal quoi ñooñu ñu amal wax xam nga wax ñooñu ñu boycotté ko baaxul si askan bi c'est pas un responsable tux na yamba ba dof ba bàyyi tux yamba est-ce que ay la demee quoi. ñu xool ñu ñuy wax moom yaa ngi dégg la demee dégg naa ko mu génn di wax lu ko neex naan xaw ma ay ah ay ay ay ay ay lal ah, lal lal démb lal ah lan la nekkoon di wax seen kii bi xaw ma. nee ji quoi. man man du ma rappeur man du ma man bu ñëwee ma jàngal ko rap moom mënul freestyle freestyle nii la nii nii nii nii impro sax mënu ko est-ce que yaa ngi na ñëw ma jàngal ko rap ma xam ne bu ñu ko seqoon si microphone xoola ma def ko glace mu congelé nang de nang du ko mën man maa ko gën a xarañ si hip hop si li may yëngu xam nga expliqué dañ ko dëggu dañ ko jub dañ ko nekk waga ëpp ko fit dañ ko ñeme lu metti yi ba pare gën ko correct gën ko normal gën ko nekk nit te ñun toxuñu yamba ay musulman nañ naanuñu sàngara tàq lu ñu wax suñu sago yow na ngeen ñëw fekk ma fan maintenant rue neuf angle seize Kousoum fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo sama kër maam ngi nii rue trois angle six gis nga sàngara ngeen ñëw ma nañ dem ba koñom foofu émission bi ngeen di ma noonoo coow ngeen di bañ donte ñu sax yow ñu firna mais ñun amuñu accès interdit fenn fu ñu ñeex nañu dem Sénégal te mus kenn musuñu dégg ñu taxaw ne xalifa from fii Xalifa forum Sénégal yëpp la ñu amuñu accès accès interdit fenn fu ñu neex na ñuy dugg muy si dëkkee bi si wuut bi si banlieue bi fu ne SAED bi noonu la demee ko quoi di ko wax ni vraiment comme war na Sénégal Cheikh Tidiane Ba boobu noonu nga xamante léegi moom lay dunduru di may taatam nga xam ni ci élection yee passé jox na ko cinq millions xam alors moom diwul problème xam nga pour mu jàppale ko gis nañ mu def son aussi naan nañ jàppale Macky Sall mu am deuxième mandat war na senegal te gënu na wax na ko nee na xeex bi dafa metti opposition bi amul dara mais léegi moom ma laaj ko gars yi jox nañ ko xaalis ana xaalis boobu tey du jeex na ana ngorom ñàkk na ko gars yi weddi nañ ko te maintenant léegi nii bu ko gars yi di kii c'est-à-dire comédien la ko gars yi jàppee dofam yooyu noonu muy def ay rang ay yëfu dof yooyu noonu xam nga comédien la ko gars yi jàppee quoi xam nga Sénégal tamit dañoo jël benn dof di ko képp kaat mu leen di reetaanloo nekk seen anti stress xam nga te man gars loolu nag ma wax naa ay bàyyi suñu waa yi suñu anti stress la xam nga looy expliqué. tey nag dina xam maintenant téeméeri kër mi fii ba léegi kenn jaay ko sama kër maam ngi nii gënoo ma bokk maintenant saa waay gënoo ma dëkk maintenant est ce que ay dégg ñun fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo donte ni dëkk nañ si temps bi te amuñu accès interdit feneen fi ñu neex la ñuy dugg am na foo xam yow boo ma fa toppoo laa sama moo fa sax topp est-ce que ay dégg voilà ñun bu ñuy wax waxuñu pour moom personne am parce que du ñu nax moom Sénégal moo tax ñuy wax est-ce que ay dégg que vraiment war na Sénégal na bàyyi Sénégalais yi ay nay dem liggéey moom na dem liggéey moom ñu fi nekkee tux yàmbaa kese la fi nekkee tux yàmbaa xanaa ak ay jël ay tableau naan day dessiné xam nga loolu la liggéeyal Sénégal est-ce que mooy alors moom si boppam na dem liggéey ñun suñu 400000. du sax ay affaire de quatre cent mille suñu pétrole ak suñu gaz li ñuy ko état bi day am par la force su moom mënu si dara papa munu si dara yaay mënu si dara est-ce que ay dégg voilà ñun dañ wax état bi vraiment suñuy pétrole contrat yëpp nañ ko jëlaat négocier waat ko pour intérêt Sénégal waaw sénégalais yi gis si seen bopp pas tubaab yi jël ko jëriñoo ko ak ñoom seen famille pour sénégalais yëpp gis seen bopp ñun loolu la ñuy xeex quoi loolu la demee mais moom lu jëntiwuñ voilà noonu la demee xam nga bu bu ko génne bëgguñu ko génne naan ay xam ay askan bi ay laa laa laa xam nga war na askan bi te askan bi faaleetuñ ko déglootuñ ko quoi dooy affaire de besoin affaire dara yu ñuy xeex dañ koy xeex di si jaamu yàlla di si liggéeyal suñu réew mu jaral ñu lu ne nax voilà du bës du xaalis du dara waaw bu doon bëgg bës wala dara ñu dee feneen te dañ koy am noonu la demee. bëggoon naa xam non non non man waxuma si Selbé Ndom défendre ko au contraire ñu muy def noonu sax man dama koy ñaawlu voilà dama koy ñaawlu parce Sénégal lañ nekk Sénégal lañ dëgg da seen dëgg fii saa ay borom xam-xam ñu ko ëpp xam-xam téeméeri junni xam loo xamante ni nii saa moo gën a grave bi nga ko waxoon dëkk bi tax seen kër nañ toog ne muut voilà yàlla dafa bëri sutura même boo xamee sax xam nga nga am sutura te tamit na am kersa tamit bàyyi mu sedd comprendre na bàyyi mu sedd xool si Sénégal xam aussi yaay booy la mag la xam nga li taxoon ñuy wax si kaam ak dix mille problème saaga yi dañ doon ñaawlu comprendre na voilà ñun rafetlu wuñu bureau bi génn di saaga saaga yu ñaaw yooyu noonu Selbé doom même bu dee lu mu mun ti doon sénégalaise la te xam nga bien vrai que gars yi xëy na bu ñu ko commencé weddi sax Sénégal tamit faut le souligner dëkku naa fekk la femme bi yàggoon na di wax ñoom ñuy gis teg seen bët di ko topp naan femme bi dafa aay comprendre na voilà kon bu ñu fàtte démb man défendre ma ko wax dëgg te yàlla tax voilà man Selbé mu xaw ma ko noonu la demee mayuma ñaar dërëm te même moo xamoon sax dama wax dëgg te yàlla tax échange dëgg voilà di wax ni vraiment gars yi ni ñu koy saagaa di dal si kawam na bàyyi mu sedd na bàyyi mu sedd vraiment xam nga li muy liggéey mu liggéey ko ci sutura bàyyi sorti kii xam nga xaw a def pause si boppam bàyyi sorti médiatique yi di wax ay xale yu ndaw ay moromu doomam génn di ko saaga xam nga ñuy taxaw di ko menacer xam nga loolu rafetul quoi xam nga waa ju dof boobu noonu looloo taxoon xam nga ñu doon ñaawlu sorteem quoi saaga yu ñaaw yooyu noonu loolu kese la woon mais du génn di ko défendre wala dara xam nga loolu la demee. jërëjëf euh, vraiment di bëgg Sénégalais yëpp xam nga di wax ni vraiment ñun Khalifa rappeur ak ay làmmiñu askan wi xam nga ay doomu Sénégal nañ ay citoyens sénégalais nañu xam nga alors suñu baat incha allah si kàttanu yàlla fu mu mën a àgg ñuy waxal Sénégal luy jëriñ Sénégal incha allah nañ ko xeex mu jaral ñu lu ne waaw jaral ñu dee jaral ñu kaso jaral ñu leneen nax leneen ñu siy jaamu yàlla ndax avant tout ñu si liggéeyal Sénégal en tant que martyr en tant que soldat. essai dégg waaw di xeex injustice démocratie na ñëw Sénégal ngir yàlla te yàlla tax essai dégg ak ak bi na jóge Sénégal jaay doole bi xam na expliqué loolu xeex ñu bëgg Sénégal Macky Sall man gënuma bëgg Sénégal procureur de la république gënuma bëgg Sénégal yaa ngi dégg policiers yi gendarme yi kenn gënuma si bëgg Sénégal dama bëgg Sénégal ba pare nekk doomu Sénégal te ñun jeunes ñun jeunes yi ñoo war a xeex liggéeyal Sénégal pour Sénégal jaar yoon nekk dëkk bu normal comme yeneen dëkk yi soxlawu ñu dem fee dañ koy xeex xoola fii normal est-ce que ay dégg noonu la demee quoi di wax ni képp ku naan dañuy def ngir buzz wala ngir xaalis wala ngir puugare wala dara yaay nax sa bopp yaay dégg ñun lijjantiwuñu loolu gis nga ma léegi may ñëw waaw man su ma amee lu may dox saa mi dama koy dox sans complexe lijjantiwu ma sax yooyu. su ma waxee nii si presse ba lancer message ba pare après xoolal yooyu sax génn na sama xel maa ngi yeneen business est-ce que ay dégg man ay bés dund ma ko lu jëntuwu ma ko ñu ma xam dégg xam nag ma est-ce ay dégg noonu la demee du pour bés du pour da nga ko def ngir jaamu yàlla ñuy xeexal Sénégal la mu jëral ñu lu ne di wax Sénégal yëpp nax xam nga mais ñëpp yeewu àndandoo bokk ndey bokk baay xam nga injustice bi am Sénégal ñu ñëpp ñu àndandoo xeex ko xam et vraiment teg pression suñu njiit yi xam nga ñu jaaral dëkk bi yoon xam nga teg yoon bàyyi jaay doole bi te suñu contrat si suñu ressource naturelle yëpp nañ ko jëlaat négocier waat ko pour intérêt Sénégal yaa ngi dégg alors gars ñoom message boobu na leen di lancé xam nga nañu bàyyi defe ni politique yi ñu ñibbi nañ bàyyi Khalifa Sall nañ bàyyi Guy Marius Sagna nañ bàyyi a a a Adama Amadou Gueye xam a nañ bàyyi defe ni politique yëpp ñu ñibbi seen kër xam nga aussi ñu jéem a xool nu ñuy defaree Sénégal ba sénégalais yëpp xam a gis seen bopp bañ a nekk ay mécontent wala ay rancunier xam ne aussi sénégalais bu ñu leen di saaga wala dara xëy na ñoom ñoo ko liggéey gis nañ seen femme boobu noonu penda xaw ma génn saaga sénégalais yëpp xam nga di fi indi ay affaire de xeet xam nga saa waay xoola am leen jom ngeen xool Sénégal lu mu leen defal ngeen delloo loolu Sénégal ngeen wàccee seen bopp ngeen liggéey Sénégal ñun suñu waxee ak yéen nekkul da leen di manquer respect wala da leen di xas wala dara dañuy wax te yàlla tax di leen fàttali parce que darul dara ay doomu aadama ngeen xam nga noonu la demee quoi yërmande yërmande Sénégal ñu bàyyi jaay doole bi xool ñun ñëpp benn nañ yesaay Khalifa rappeur la di jégalu nax si bépp kàddu bu fekkee ñaaw na di wax ni defar moo ñu si tax a ma taanis bi si amaar yow sëpp